waaw gars yi maa ngi kontaan tey bu baax a baax seen teewaay fii tey quoi parce que vraiment bi ñu créé suñu groupe bi ba léegi euh, daal kenn wéetatul si ñun euh, kontaan aussi ci ànd bu rafet bi ñuy ànd xam nga te di lépp boo gisee lu ko waral mooy ànd bu déggu bi ñu ànd moom moo waral lii lépp parce que bu ñaawoon lii lu am tey bàyyi ngeen seen yittee seen soxla yépp ngeen ñëw seet si ma xam nga maa ngi ciy kontaan bu baax a baax mbaa kontaan nii ci bernde yi. waaw mais ah li ma def tuuti wër rek. Ah, bu tuutee ma yokk affaire ah. rek nii la mën ah. demee quoi xam nga. parce que bu xamante bi ñaawoon euh, mën naa ne tey lii du am. donc tey ñu toog woote suñu jigéen ñi ñëw wuy suñu macha allah. donc ñu toog euh, waxtaan. Hmm. donc lii mooy àdduna quoi te WhatsApp war nañ di wane à chaque fois njariñam. ci réew mi ñu wan ñu bañ a wane que ni yàq rek mooy njariñam des fois dafay defar parce que mu ngi nii boole ñu nekk famille mais na xam naa ne man sama toogaay du yàgg parce que dafa am ay bagages yu a jëli léegi sama rakk ji Sophie Mbaye am ay bagages yu ma yónnee fa laa war a dem tey ci groupe bi bëgg naa ñu waxtaane euh, xamel hmm. waaw tey moom bëgg naa ñu waxal parce que lii daf ma inspiré quoi xamante bi neex na ma trop franchement xam naa nag dama leen di bàyyi ngeen continuer man ma ñëw mais yaa ngi koy yàq non xam nga rek waaw amul problème après dinañu dinañu déggante waat ah, Jadi, neex Oke ok boy allo wooy koña yaay sama buntu kër waaye boo ñëw sama kër doo ma tàggu koña man damaa sama kër doo ma ko wax mënumaa ñëw damaa génn ngay xataraayu noonu kon koña mbër koña mbër waa ci da nga xam koña mu koy waxal ni koña de ma lay war ba gudd jot mu di génn waaye dañuy génn waa yow koña suñu waa kër léegi ñëpp ñëpp ñëpp koña la ñuy supporté man daw naa fu ne ndax moom. Ah! waaw këpp nañ ma ndox def nañ ma ci lu ne. man nag koña comme ndox ci man. puissance man sama buntu kër taxaw di ma xaar puissance xam mbër. koña moom ma kaa bëgg xale boobu nga xam ne làmb ji da téye nii ci loxoom. Ah! fàttaliku naa booy foora ku ne jaar lay caw ñaanal ñu fàttaliku Seydou Diagne dikkal ñu fàttaliku su ku ko moom amagul combat ah. Nih nih nih nih. Mbaye ni génne jikkoy portugais bi xam nga mu dëkkal ko moom yaay portugais la sax. looy wax nii. xam nga gars yi dañ naan Couleur Fouta la. mais du Couleur Fouta yaay portugais la. papam lan la woon. ñak ñak. merci papam ñak la woon. yéen li ngeen bëgg a wax. non après naa jox non a jox numéro fu yor ñak bi sama xarit daf man nga ni non lool non moom lan la woon sax portugais. day defar kii rek pièces yi da koy soppi. da koy sànni waaw la de noonu la lay def kooñaa li ma ko xamal. kii de warul kooñaa moom. kooñaa koy man ku bëgg moom mën ngaa jël man kooñaa moom dérange wu. Ah. Ah, xale yu jigéen ci réew mi ñëpp ñëpp moom la ñuy wër. Ah. day nekk di ko sàggane. ba mu des jamono waay mi toog kenn tooñ la dëgg neexul kooñaa rek. ëpp na kenn tooñ ñu kooñaa moo tooñ. naka la kay. ñu ngi si jàmm lépp jàmm. allo Kenza. na ngeen def soxna bi. Cuub Kenza borom Atali. naka waa ndox mi. waaw Cuub xaritu Bamba. laaj Kenza yaa riis. naka jafar bàyyi. waaw ñu ngi nii si kaw bi. waaw baax na te yéen ci jàmm ñu ngi sant waaw ça va yéen jàmm ça va alhamdulilah na ngeen def soxna bi wala sama fans bi laa jàkkaarloo. billaay yow. Zera yaa ko yow Zera yow nag xoolal. baaskat ma bu mag baa ngi de baal ci yonent bi. booy wër ku toj ci arène bi kii la. kii Koña borom Amérique. toj na toj a toj a toj a toj ba toj fii mu nekk. non damaa bëgg rek nga may ma tuuti ma lu ma lu ma lu ma lu ma bëgg a laaj. yow eh, yow bi ngay woo kii kay mënoon nga ñu ko yëgal yow tey mu bañoo bett nii

Oh, iya, joylo na la gudi joylo la beccu ci mbedd bi bis bu ne da ci toroxal muno ko baye affaire metti mo torop nak motax ma envoyé le message gis nga see jigéen du bax bu meuna katch la mo la tax mën fen ki da nga wara wax ak mom de bu yak sa tu sa bi fu ne soxna si yow nga ni ma yow dañuy genn koña deux la wax dum deuk parcelle yow waxoo fi koña bii nga ngay génn waxoo ko fi yow. yéen ñaar ñii gàcce gi cuub na ñay palmaanu leen yow li mu fi wax yépp ne koña sa far la koña seen buntu kër lay nekk bàyyi leen di yàq deru star yi yéen xoola man tax ngeen ma sax ma bañ a nekkati jigéen toog fii di kàcc kàcc yoo xam ne tegul yéen nag feebar boobu ñuy wax mitomaan damaa yaakaar ne dafa nekk seen biir. sa gërëm phase macaroni bi. waaw boo ko laa xam ne <laughs> doo wax lu baax. ndax li fi nek di wax yeb dara du ci deug man nga tour sama yeb jaxasse sama xel mi traumatisé ma bama amé ci dépression bu gaaw bi anti lako ko yow la laajuma la yow ñaar ñepp mëna a nga melni ni kuy faj rab yow yow danga ma xam yow wa ci ki bi ci télé bi man yow dañuy gën mbër dama juum de maa ngi jégalu yow yow yow fen gi nga nek yow ñu lan nga si jublu ko yow ah di koña deux koña parcelle ñi ngeen def di wër di fen wër di duul di dajalé ya? di yàq deru nit ñi ngeen teg ko ci lan nit ñi siiw ñi kenn amatul jàmm ndax sa classe Amérique wala eh na ngeen rek eh, wuy ma déglul kii li mu lay wax non mooy li ma la wax rek dama ne léegi yow xool nga bu baax ni nga mel nii nga mel ni nga war a mel macha allah mu leeral boo toogee fi nga war a toog mel ni nga war a mel lu ne mën na la ci fekk billahi yow ci bu doo rey nëb nga yow li nga fi fen yëpp kii ñëw toog rek après ngay yaru yaru lu ni di jay fi bàyyi sama njaganaay bi ngay yak bayil ba eh njaganaay bi. ah moye yee gàcce bi. yee gàcce bi nekk fii yak fan ko yàq sama njaganaay nii naa la man. eh ba nga joy fi. génn. waaye mbër maa ngi jégalu ak non amul jégalu. namaste mbër. dama ne la lii amul jégalu. tey kër gi dañ koy soppi arène sax boo bëggee. man non dañ koy soppi arène. man bëree ma mbër bëree Thank <laughs> you.